asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki askan wi fukki waxtu toftal fanweeri simili ak benn ngeen wéy di ànd ak seen télévision Al Mauritania di leen jaajëfal bu baax a baax di euh, jaajëfal bu baax a baax mbokk yi nga xam ni ñoo nekkoon ci kàddu gi ci xibaar yi euh, Ndeye Sow Seydi ñu ziar la euh, del si ziar mbokk yi nga xam ni ñu ngi ci tundu réew mi asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu mbokk yi am di jàmm yi seen émission waxtaan bi mooy door di ko sante buur bi yàlla ak yonent bu tedd bi Muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi nuyu mbokki askan wi euh, njiitu réew bi ñu nuyu ko bu baax a baax rawatina ak mbokk yi nga xam ni ñoom la ñu dénk doxalinu réew mi di leen jaajëfal bu baax a baax ulema yi imam yi ak ñi nga xam ni ñooy kilifa aado yi nekk ci gox-goxaatu réew mi ñu leen di sargal bu baax a baax di leen yóbbaale saa su jot waaye yóbbaale bi yóbbaale jàmm ndax ñaan la ñu soxla ci réew mi mbokk yi dañuy faral di def saa yu mbas joge wala am li nga xam ni buur bu yàlla moo ñu ko séddee ñuy jukki ay ñaan ndax ñaan la mbokk yi am bu ko defee mbokk yi tey dinañ fi toog ak sama ñaari naataango kenn ki di Aïda Moussa Gaye di infirmière muy yëngu ci fànn di yaram ak ki nga xam ni mooy get Diagne fal moom taskatu xibaar la waxtaan wi euh, dinañ ko jukki jëm rek ci li nga xam ni moom mooy mbas mi ndax jamono yi soo xoolee réew mi ak gox ko xaat yi àddina bi yëpp ñi ngi jànkoon teeg li nga xam ni mooy xeetu mbas ñuy wax génnam bu jiitu di wax génnam bu ko ñaareel ak ñetteel ba tey ñuy taxaw ci xeetu variant mooy virus bi gën a soppeeku variant bu ñuy wax omicron mu doy waar lool gaaw lool ñu taxaw seetlu ndax jogteef yu njëkk yi dina mel na jogteef yi ndax bàyyeeku ndax jogteef ndaxte boo xoolee ci kër yu bare ci jamono yi ñi ngi euh, am benn xeetu feebar boo xam ni ñi ngi naan moom laak du moom waaye mi ngi dugg ci kër yi mu mel na deng ak linu nu mel bu ko defee mbokk yi sama ñaari naataango yi ma jàkkaarlool di ko sante buur bi yàlla dinañ ubbi waxtaan wi ci mbiru mbas mi ak li nga xam ni mooy taxawaayu doomu aadama yi waaye itam taxawaayu nguur gi euh, soxna si Aïda Moussa Gaye ñu ngi lay dalal sa télévision Al Mauritania bismillah rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam nuyu naa leen bu baax télévision Mauritanie nuyu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan jërëjëf jërëjëf Aïda Moussa di la ziar jërëjëf Ibrahima maa ngi nii baax di la ziar di nuyu Aïda mi nga xam ne moom laa seqal plateau bi di sant yàlla bu baax moom mi ñu may kattan ak bu ñu ñëwaat fii di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi nuy bàyyi xel jamono ji ñu nekk. am na loo xam ni dinaa ci ñëwaat ak yéen waaye dañuy seeti ñi nga xam ni ñoo nekk ca VTR vatimètre wa daal la ñuy euh, jaajëfal mu yónnee ñu suñu élément bu jiitu janoo ak way taskatu xibaar yi ñuy amal bés bu ne jëruñ ñu dénk wàllum wér-gi-yaram amal na ko nag démb Euh, tombeek euh, samdi mm, ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier atu ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar jotaay boobu la ca génn moom moo di euh, test yi ñu def ci bés bi mi ngi toll ci ñetti junni ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom Euh, ñi nga xamante ni nag moom moo di test yi ñu jot amal bi mbas mi duggee ci dëkk bi euh, ba léegi mi ngi toll ci juróom-ñaari téeméeri junni yu teg euh, juróom-ñaar yu ñuy toftal juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar. ca bés bi ñi ci xam ñu ni jàpp nañu doomu jàngoro ji ñu ngi toll ci ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn ñi wér tollu ci juróom ñeenti téeméer suñu xayma ñëpp ñi nga xamante ni jot nañoo am euh, jàngoro ji fii ci réew mi mu ngi euh, toll euh, ci ñeen fukk ak juróom ñetti junni yu teg téeméer ak ñaar fukk ak ñaar bu ñu saytoo nag ci ay bés bi ñu génn ñu seet lu ni euh, quatrième vague ci mbas mi daal mi ngi wàcc bu baax a baax euh, lool wàcc boobu daal moom la ñu nemmeeku kon di ñaax askan wi ñu yokk fagaru ngir wàcc bi gën a am solo gis nañu tamit ci wilaaya yëpp ñi nga xamante ne ni noonu la fa mbas mi euh, di demee loolu yëpp waa kër jëwriñ ji ñu dénk wàllum wér gi yaram ñëw nañ ci ñu ñëw nag eh, ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci way kër eh, docteur eh, bésu naka bésu samedi bi ñi nga xamante ni ñi ngi leen di téye ci hôpital mi ngi toll ci juróom-ñaar ñi nga xam ne mooy cas toll ci benn ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñàkk seen bakkan toll nañ ci ñeent ñu koy naqarlu ñi nga xamante ni ñoo génn toll nañ ci fukk ak juróom-ñaar bu ñu xoolee ba tey waaye kër docteur bi fi mbas mi ñëwee ba léegi ñi nga xam te ni jot nañ leen a uh, ca l'hôpital ñu ngi tollu ci uh, juróomi junni yu teg juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñi nga xam ne nii am nañu cas ñu ngi toll ci junni bu teg ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ñi si ñàkk seen bakkan toll ci juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ñi génn ci l'hôpital tollu ci ñeent junni ak téeméer ak fukk ak juróom. ñu ñëw nag ci wàllum euh, ñàkk bi euh, ñëw ci li nga xam te ni moom la nguur gi euh, fas yéene ñàkk ci ñi am fukki at ak ñaar ba fukki at ak juróom-ñaar nguur gi bu sañoon dina ci ñàkk juróom-benn téeméeri junni ak juróom-ñett fukk ak ñeent yu tekk ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett loolu la nguur gi bëgg waaye ñi ci jot a ñàkku ñi ngi toll ci téeméer boo jël ñaar fukk ñi nga xamante ni nii ëppal nañu fukk ak juróom-ñetti at nguur gi bu sañoon dina ci ñàkk ñaari million yu teg ñaari téeméer ak euh, fukk ak juróom ñetti junni euh, ñeenti téeméer ak fanweer ak ñaar waaye loolu nguur gi bëgg lim ci amagum mooy téeméer boo jël euh, juróom benn fukk yi jël nañu li nga xam te ni moom mooy seen dose bu njëkk ñeent fukki ak ñeent jël nañu seen eh, ñaareelu dose eh, téeméer nag boo jël benn bi rek moom def li nga xam te moom moo di rappel kon nag eh, ñuy ñaax nit ñi rek ni daal jàngoro ji mi ngi fi ba léegi nañu daal di fàggandiku waaye tamit daal dem ñàkku ji. ndey Fatou Mineur la ñu jaajëfal moo leen euh, jagleel loolu nga xam ni mooy génn bi nga xam ni génn na ko euh, dina am yeneen yoo xam ni fa tabaarakallaahu dinañ ci dikkaat euh, soxna si Aïda Moussa lii dafa doon loo xam ni nguur moo koy saytu ginnaaw mbas mi ak vague yi nga xam ni ñooy ñooy ñëw waaye a chaque fois ñuy taxaw di fàttali doomu aadama yi fan la ñu toll ci xeex bi ak ñi nga situation yi ci situation générale yi nga xam ni euh, moom la hôpitaux yu joxe euh, ndax lii euh, am na am nga ci gis-gis bu baax donte ne ñii seen wareef la ñuy def citoyens yi war ko war ko dékku mooy ñu taawu ko doxal ko lan moo ci sa gis-gis en tant que liggéeykat ci fànn wér-gu-yaram. waaw asalaamaaleykum maa ngi ñaax sama mbokk Mauritanie yi Euh, micron bii dafa am lu am la waaw am ñi nga xam ni seen gis-gis dañuy wax ni feebar bi amul man gis naa si ay cas dañuy wax feebar bi amul te or ko feebar bi am na dëgg la mi ngi fii suñu réew mi Mauritanie macha allah xam naa ni moom dafa la daanelul rek mais bu la daaneelee daa gëm ni feebar bi am na te ñu bëri nag ñàkkooguñu dañuy wax ñàkku nañu mais ñu bëri ñàkkooguñu ndax man bis bu nekk damay def rapport téeméer boo jël juróom fukk yi ñooy ñàkku juróom fukk yi ñàkkoo ñu ci doomaanu réew mi réew hmm. mi première dose bi sax moo tane ndax première dose bi amoon nañ ci ay nit macha allah amoon nañ ci nombre hmm. deuxième dose bi tuuti rek à peu près bariwul hmm. mu ñu relâché waat première dose bi duñ daan fees dell ak nit dañuy jël ñetti centre PK centre de PK 8 laa lay wax de dañuy jël ñetti téeméer ak juróom fukk par jour chaque jour. ñetti téeméeri doomu aadama ak juróom fukk. première vague bi. mais bu ñu amee deuxième dose deuxième dose bi ñi ñiy ñëw di def seen deuxième dose barewul. boo amee fukki nit par jour fa lay yam. ndegam deuxième dose la ñu jël siwul waxatuma laa euh, rappel bi. dëgg la rappel bi. Hmm. bu ma defee rapport ba pare. trois personnes laay am ñetti nit laay am dose rappel. Hmm? dose rappel rapport bu ma ko defee ba pare. as néew hmm. laa ci am. Hmm. kon nag ma xam ne lii jaaduwul du dëgg du yoon nit yi dañoo war a jël seen vaccin surtout président de la république def si def euh, xaalis. ñoom dañoo yaakaar ne réew mi ci def xaalis. réew mi moo si def xaalis. du ñu yaakaar ni nag euh, ñàkk yi ay kaf la wala ay ay foo la du ñuy wax feebar bi daal amul. mais daal nañ gëm yàlla. ñu dem ñàkku ji man loolu laa gis. gëm yàlla dem ñàkku ji am na solo lool euh, euh, mbokk yi soxna si li muy def mi ngi ko jukkee ci liggéeyam ndaxte kenn ku nekk ak li la yàlla dénk ñële ju taxaw ci bopp réew mi di joxe loo xam ni situation réew mi ci mbas mi lay lay indi mm. waaye moom mu bokk ci gox-goxaat yi nekk ci euh, poste de santé Riyad di jukki li nga xam ni mooy situation bi nga xam ni ñàkku yi moom vaccin yi la la attaqué mm. Guet Euh, moom bu waxee ni par exemple première dose yi nit ñi dañu ñëw en afflux ñëw song première dose yi euh, lan nga jàngat deuxième dose ñu commencé relâché hmm? lan nga jàngat ci situation bi. waa jàngat bi ma am ci li mu wax rek euh, moo di nit yi ba tey dafa am ñoo xam ne dañu gëm ni feebar bi amul wala ñenn ñu jàpp ni benn dose rek doy na. Hmm. or que vaccin bu nekk rek dose am ñii dañu am ñaari dose yi am benn dose. Hmm. kon duñu war dem vacciné wu ji xam ni lii ñuy def seen njëriñ la mm-hmm. xëy na relâché nañu mais sensibilisation bi mën naa xam ni xëy na dafa des mm-hmm. ndax xëy na bu ñu ko gënoon a yaatal ñoom ñu ngi def seen kéemtalaay kattan mais am na ñoo xam ni xamuñu sax lu xew mais ñan ñoo war a sensibiliser aujourd'hui sensibilisation en tant que euh, taskatu xibaar. tas man mhm. ñu ngi commencé ci ñun ñii nga xam ne ñooy yaatal xibaar yi. ñooy mhm. tas xibaar yi. Mhm. ñu commencé ci ñun. di dugg ci euh, dem ci bërëb bi nga xam ne bërëb bi fa ñu dajali ko. leen sensibiliser. su jëree ñu dugg ci biir sax ñu dugg ci biir kër di sensibiliser nit yi. ak ñi nga xam ne ñoo yore wàllu yaram. ñoom itam am nañu ci place. mais ndax gis nga programme yoo xam ni euh, dañuy def li nga wax. Euh, euh, mm, sensibilisation de proximité. proximité gisaguma ko. Mm. gisaguma nag mm. foog sama gis-gis la man. mais mm-hmm. gisaguma ko effectivement te wax dëgg yàlla en mm-hmm. tant que journaliste. Mm-hmm. su doon sama sago ñu dugg ci këroo kër. naa mënuñu ko waaye ñu quartier bu nekk ñu woote fa. du ñu sore yoon nag xëy na dina am espace yu ndaw rek ñu def fa seen i tente ni ñëw leen. nit yi xumbaay ak mumbaay rek la ñu bëgg. boo leen woyee ñu leen du ñu xam lan la mais bu ñëwee ba toog ci la ñu xam lan la dañu déggee yu way. daañu ni ah woy am na nañ dem xooli. waaye bu buñ ñëwee dégg li ngeen di wax dana am ko ci for as suut dem jotali ko ci koñ ba mhm. ainsi de suite mhm. ñu defee noonu yaakaar naa rek sensibilisation bi dina gën a yaatu mhm. surtout nag gox goxaan yi ndax gox goxaan nit ñi bu jara bàyyi xel lañu am na ñoo xam ne ñi xamuñu sax tele am na ñu ko xam ñenn nañu xëy na ñàkk courant moo tax guddi ba guddi la ñuy taal xëy loolu bayatul sax ñenn nañu amuñu jot loolu yëpp duñ ci war a duñ ko war a dépassé bàyyi xel léegi nag ñu dépassé courant bi mais ñuy déplacé wu dem leen fekki mm-hmm. mm. suñ leen fekkee fa ñu nekk mm-hmm. jàngal leen nan laak naka la mm. surtout mesure barrière ñu wax leen ni ñu koy defee mm-hmm. yaakaar naa rek su boobaa daañu dem ñoom ñëpp dem vacciné mm. ci sama gis-gis euh, soxna Guèye Diagne Fall mbokk yi mi ngi wax ci euh, euh, forme yi nga xam ni yi nga xam ni moom la ñuy sensibiliser wax na fi lu am solo mooy accès bi nga xam ni euh, fa accès bi nga xam ni fa la nit ñi yam nit ñi bo bokkuñu. Mhm. am na ñoo xam ni tout de suite ñu ngi yor seen téléphone xam lu ci réseau yi ak yenn yi te lu bare ci lay xew am zone yoo xam ni itam amuñu télévision walla naka su euh, euh, ci fànn yooyu mhm. ndax yéen sentir ngeen loolu ci ci ci poste de santé yi parce que yéen aussi war ngeen am programme bi nga xam ni. Euh, da ngeen di dolli mode de sensibilisation bi nga xam ni euh, soxna si Guèye Guèye Diagne Fane wax. Mhm. dëgg la waaw euh, sensi côté sensibilisation bi. Mhm. dafa xaw des nag comme sama naataango Guèye nu ma ko waxee. Mhm. côté sensibilisation bi dafa des. ndax ñu bare xamuñu daal luy géej gi riir di riir. duñ leen sensibiliser mais ba léegi ñu ngi ci troisième ba léegi am ñi nga xamante ne réticence mi ngi mi ngi noonu. Euh, sensibilisation amul amul daal des na des na dañoo war a. yow boo doon sensibiliser Riyad. en tant que professionnel bu nekk foofu. Mhm. naka ngay def. man bu ma doon sensibiliser en tout cas man maa ngi ci. ci fàndu vaccin. vaccin man maa ngi ci mhm. vaccin yi. Mhm. vaccin xale yi sax laa gën a nekk. mais yaay bu ci ñëw dama lay laaj ndax am nga carte wala amoo carte. Hmm. ndax vacciné nga wala vacciné woo. luñ may tontu am ñi nga xam ni dañ lay won ne la am naa sama carte def naa première am na yi nga xam ne nag nee na ñoom duñ ko def abadan hmm. ndax luñ si dégg li dafa ëpp euh, luñ koy waxee gis-gis wala xam hmm. duñu mus a vacciné wu hmm. ew eh, te yow munoo forcer nit ki mu mu vacciné wu dégg euh, lu mu tuddeeti ñoom dañoo wax ni euh, Sinopharm bi deux doses la woon kon troisième dose amul deux deux doses lañ leen waxoon daal kon troisième dose ça n'existe pas Johnson bi encore dañu leen waxoon première dose nee na moo amoon benn dose benn dose moo amoon mhm. waaye ñaareel dose amul mhm. même poste sortie bi am nañ fa poste poste de sortie de sortie am nañ fa poste vaccination Rosso Rosso 17 bi 17 normalement ak yeneen poste de sortie ak yeneen poste man dimanche passé dem naa assister ak ñoom mhm. mais bu ñu wàccee nit yi ci oto yi ak ñi nga xam ne dañuy wax ni fatte naa sama carte indiwuma ko te kenn du la ñàkk te indi sa carte te indi woo sa carte ñu xam foo toll. Mhm. am na ñi nga xamante ni. ñi ngi yor seen carte ñàkk si euh, ñàkku nañu euh, Johnson bi première dose. Mhm. mais du ñoo bañ def deuxième dose bi. mais loolu foofu il faut ñu taxaw fa soxna si. Mhm. lan ngeen jàngat ni moom la. lu ñu jàngat wala gerte soo si amee. ah def première dose damay yokk tuuti rek ci ñi mu wax ni li mu wax ni maire yi dañuy ñëw yaayu xale yi mu wax leen ndax vacciné wu ngeen ñenn nañu dañu ni euh, defuñu. mais yéen am na nu ngeen leen di naxee da ngeen di naxtaan ndax dëgg la am na ñoo xam ne dañu dëgër bopp neexuñu kii mm-hmm. Mm-hmm. mais am na ñoo xam ne ñii xëy na ñenn ñoo leen jiitu ci ñoom mm-hmm. di leen wax leen bu leen def lii baaxul lii lay jural sa doom lii la koy jural mais yow mi nga xam ne yaay liggéey ci bërëb bu fajukaay bi wala man mi nga xam ne damay eh, tas xibaar mën naa dem ba ci moom naxtaan ko wax ko feebar bi lu muy def ci doomu aadama wax ko lu mu koy jural wax ko ni muy wàllee ak yooyu yëpp xëy na bu ngeen ci yee bu ngeen leen ci mm. yeexee mm. Mm. yaakaar naa rek euh, du ma du ñu am. jàmm dina am. du ma ne du ñu waaye dana am as mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. dëgg la te encore en plus. am naa benn benn sama benn xarit rek. nee na dafa dem di jëli kayitam. doom dafa accouché di jëli accouchement doomam. duñ koo laaj carte bi. te moom dafa bañ a vacciné. bu mu ñëwee mun mën naa ko dimbali. ma ne ko xam nga luy dëgg nga jël nga dem ñàkku ji. ñekk yi reyul kenn gis nga man mii ma ne ko man def naa sama deux doses pare naa ci boo buggee nga dem nga ñàkku ji ndax mun ma man damay dem Sénégal ma ne ko même booy dem yoon bi am na pos soo ñàkkuwul doo jàll lan la ma mujj wax ni ma kon maa ngi dem ñàkku ji waaw foofu ge dañ fay taxaw parce que c'est un euh, exemple bu bu baax la aussi mm-hmm. euh, am na lu bare loo xam ni da nga koy soxla ci réew mi ci béréb yi comme ni soxna si waxee léegi mm-hmm. euh, ñu exiger la carte jaadu na jaadu na forme forme forme sensibilisation la wala ban forme la forme sensibilisation la ndax nit ki boo ko exigé wala obligation non mën naa mën na bañ nekk obligation ah, sax bu taxa bu taxawee gis njëriñam waaw bu taxawee ñu ko mënoo ko am te waaw obligation exemple c'est obligatoire ma jox la exemple par exemple ndimbal yi nga xam ne ngoogu doon na ko def mm-hmm. duñu ni ko amul carte carte mm-hmm. doo vacciné mm-hmm. xam nga yooyu déjà tax na ñëpp ku bëgg ku ci bëgg daa dem parce que genn wàll bi yëpp yooyu aussi buñ ko doon def mm. di ko continuer di ko def di ko wéyal di ko def mm. Mm. yaakaar na rek askan wi xëy na ñenn ñi bare dañoo néew doole mm-hmm. du ñu naan ah du ma dem di vacciner et vaccin fayoo defoo dara mm-hmm. kay dëgg yàlla kaay ma faj la ah yomb na de mm-hmm. ndax suñu toogee ba ëllëg ba sey mën na dem xëy na du fi am mais mën na dem ba jafe te su boobaa nag naan su ma yëgoon fekk su ma yëgoon raw na la kon ngal la nañu dem vacciner wu ci vaccin yi wax dëgg yàlla man de gis naa si njëriñ ndax yow mhm. déjà ba vacciné woo. Mhm. yaa ngi aar sa bopp. Mhm. aar ñi nga nekkal. ndax tey ci tey dëgg la su vacciné woon tey dan la dal. dañuy dan la dal dan la dal. mais ni mu la waroon jàppee. du la ko jàppee xëy na ki moom moo ci gën a moom moo ci gën a place ka moo ci gën a màcc xëy na am na la ma si yàlla may en tant que taskati xibaar. xëy na bu la jàppee ni mu la waroon sonal du la ko sonalee. kon déjà ngal la mhm. demal nga vacciné nga protéger sa entourage. Mhm. loolu daal laay ñax askan euh, soxna si man dama respecté ñi nga xam ne ñoo nekk ci fànnu wér-di-yaram. Mhm. d'ailleurs on les remercie. ndaxte booy xool euh, depuis janvier. Hmm? janvier ou décembre. Hmm? ñu ngi toll ci euh, at ak lu topp wala ñaari at. wax dëgg yàlla réew mi war nañu taxaw. Euh, saluer ñi nga xam ni ñoo yore wér-gu-yaram ci réew mi mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu moom nañ ci taxaw di leen jaajëfal ñoom ñëpp fu nu mën a nekk ci diwaan wi jaraw lakk yéen mais suñu wax lu ci gën a bari dañu tëb rek dugg ci vaccin yi te yaa ko def en tant que professionnel se vacciner rek doy na mais waxagoo ma geste barrière yi nga dugg ci d'accord hmm? waaw geste barrière yi moom hmm? Euh, gel alcoolisé moom la ñuy jël. waaw mais nga wax nag naka naka nga constaté ndax bàyyeeku am na ci wala amul important pour l'instant bi moom bàyyeeku am na wala boo ñàkkoo rek soxlaatoo geste barrière. Ah, soxla na yooyu yéen a koy ba tey soxla na. même boo ñàkkee ba tey mun nga def say masque mais loolu yëpp dafa wàññeeku léegi première vague bi nu mu meloon ak dernière vague bi yàlla na nekk dernière. waay amiin kàttanu yàlla yàlla na nekk dernière. mais wàññeeku na lu bari. Mhm. ndax gisatoo kuy def masque ak nuyoo yi. bare na encore ak xew yi. waaw mais euh, est-ce que vaccin bi day day day dindi day rassure nit ñi pour ñu bañati def masque. déedéet da nga war a def toujours masque. même soo bas. même boo vacciné defal sa masque. Mm-hmm. mais même boo vacciné mun nga am feebar bi mais du nekk cent pour cent. Mm. du la jàpp du la tëral. Mm. ndax euh, mais est-ce que jàppul sax ñu bare ñoo xam ni tëdduñu. jàpp ñi vacciné ba pare. Hmm? ah euh, tas xibaar yaa ngi koy ñi vacciné ba pare man mii jàpp na ma. ah jàpp na ma. waaye dama jël sama ñaari dose alhamdulilah mais tërlu ma comme noonu daal alhamdulilah. Mhm. waaw ba tey rek. ni euh, ñëw ci vaccin yi. wala mhm. sensibilisation yi ba tey rek euh, nguur gi du ñu naan dañuy tere xew wala dañuy tere place bi nga xam ni nit duñ fay dajale ko mais loolu yëpp buñ ko boole woon ak jëf. maanaam ñu ngi jëf mais jëf gi moo moo moo moo des. ñaan ñaan ñu ngi jëf mais jëf. nguur gi xëy na ñu ngi jëf. Mm. mais xam naa ne bu ñu ci defoon seen fulaak seen fayda xëy na amaan na la yu bari dina wàññeeku ndax ñu ni bàyyi nañu seen loxo ñu taxaw parce que gis nga man dama gëm ne ñoom ñu ngi def seen kéem lay kattan man gëm ne mhm. mhm. yow mi toog fii mhm. euh, njiitu réew mi ak ñi nga xam ni ñoo yore doxalin yi ñu ngi def seen kéem lay kattan war nañ la mën dégg pour nga xelal leen ñu ngi def seen kéem lay kattan mais à chaque fois boo may wax am na lu des en mm. tant que taskatu xibaar bu toll ni yow mm-hmm. bëgg naa nga wax li des non non li des du dara sekk des bi yëpp mën naa wax ni xëy na ci nun la mais si ñam la aussi ndax ñoom bu ñu jëloon seen matukaay yi mat sëkk daal ni ah benn danseen bu mu fi ubbeeti mais est-ce que ñu ngi ubbi actuellement mm-hmm. ah bu ubbiwuleet day xëy na léeg-léeg daa mm. dégg ay yuuxoo mm. yi fii ay groupe yi fi xam nga loolu yëpp mun naa yor ay soxna fii yooyu du ma xam nga yooyu yëpp mun naa ñàkk mm, yooyu yëpp mun naa ñàkk bu ñu taxawee rek yaakaar naa rek nit yi duñu am sañ-sañ bu ñu ñëwee fekk nit yi dajali nañ ñu fekk ay mbana ñu tegalu ko mm-hmm. même bu ñu leen doon def ay daan bu ndaw rek mm-hmm. ñu def leen ko rek mm-hmm. amaan leen ne keneen du sañ def ndax bu bëggee def dana ni ah kër diw ka tegoon nañu barki démb ba mbana teg na fay nañu fukki junne fukki junne laay wax de xam nga fukki junne wala cinq mille bu mm-hmm. fay nañu cinq mille mm-hmm. boobaa man dinaa ragal dëgg la mais bu ma wóoree su ma tegee mbaa dara dama si fekk wala su fekkee xëy daañu naan ma eh, bu ko defati jeex na bi mm-hmm. tegoon ay daan yaakaar naa lu yëpp dina wàññi dina ay daan ay daan ay daan ay daan daan bu yem rek ndax nit yi ñëpp ay néew di doole lañ bu ñu nee fukki junne la ñuy teg nañ teg fukki junne ku ñu jàpp jox la fukki junne sensibilisation bi aussi ñu gën ko yaatal gën ko yaatal mhm. surtout nag bërëbu jàngukaay yi mhm. Mhm. di école yi di dem ci bërëb yi nga xam ni duñ fay nekk di tuur ñu jàngi tuur ñu dem fa yee leen tas leen jàngal leen nan laak naka la wax leen teer bi nu muy def nu ñuy raxasoo nu ñuy takk seen i masque nit yi bàyyi masque yi tey ji tey mën ngaa wàññi néew nañuy masque kon loolu yëpp mën naa ni rek euh, ñu ngi seen jantalaay kattan mais askan yi bàyyi nañ seen loxo mais ñoom itam bàyyi nañ seen loxo nga may ma ah. tuuti euh, oui madame nga may ma tuuti temps yële ministère de la santé am na lu mu defoon jigéen ñi comme ñu ne dañ leen di jox xaw ma xaalis xaw mm. mais ku ci amul sa carte vaccination. doo doo ci doo doo seddu. macha mm-hmm. allah ñu bëri. ba tey baax na baax na. Mm-hmm. soo demee si encore boo amulee sa carte. Mm-hmm. doo jënd maalo ceeb wala diwlin ba tey baax na baax na bu ko defee nit yëpp daañu ñàkku. jërëjëf euh, xam nga yéen a ngi génnee ay daan euh, wax nañ fi itam nga xëy soxla dara ci béréb ñu ni la boo amul carte vaccination. Euh, Euh, kenn du la kenn du faj sa aajo. Euh, ñaari mbir yooyu am na solo. mais toujours dañu taxawal nguur gi ay taxawal li nga xam ni mooy ay daan mu génn fi du dëgg. léegi citoyen bi la ñuy la taxawal mais yéen en tant que ajo soxna. mbaa gëm ngeen ni lu yàqu ci mbedd mi rek lu ci bare ci biir kër yi la jóge yaa ngi wax waxu l'école bi mm-hmm. ñu wax ci pàcc boobu yéen ñaar ku ne dina mos ci jox xalaatam taxawaayu boroom kër yi taxawaayu yaay yi ah, ma gis ni bu bàyyeeku amee ci l'école yi mm-hmm. xale yi kenn préparé wu leen aussi dama bëgg wax ni bu ñuy xeex dara mm-hmm. ñëpp ay acteur ak ay bokk état citoyen ak euh, ñi nga yi nga xam ni mooy wareef fii ah léegi ci biir kër yi voilà ak gestion mbas mi euh, lan nga ciy jot euh, ci biir kër yi parents yi am na ci responsabilité bu mag surtout jigéen yi mhm. ndax euh, xale xamul dara mhm. sa doom bu demee boutique ba sax mhm. bu ñëwee rek war na raxas loxoom am na ma maman bu ñuy toll sax xale ba ko sax yónnee boutique gaa warul warul ndax mën na jël mën na dem boutique ba ñu may ko tàngal fekk xaalis baa ngi ci loxoom mu téye ñu may ko tàngal ba boutique bu baax la may ko tàngal mu jël tàngal ba sax xam nga déjà micro bu nekkoon ci loxoom rek. Hmm. lekkale nag. Hmm, xam nga. Hmm. surtout jamono ji ñu toll nag muy jamonoy omicron bii nekk fii macha allah. xëy na mu ngi wàññeeku baax baax ñu sant yàlla mu gën a wàññeeku. parent bu nekk war na teg ndox ci buntu këram. teg fa marsal. teg fa saabu. ak javel. ku dugg si war na raxasu nga jox ko Kleenex mu fomp dugg. léeg-léeg nga nekk ci jël sa javel. xëy na métti na méttiwul mhm. laal buntu yi buntu yi nga xam ne duñ koy jàpp ni lokk yi nga mhm. ci laal ak javel tuuti tuuti mhm. fépp foo xam ne fii wóor na loxo mën na fa tegu rek mën nga koo laal ak javel kooku rôle jigéen yi nga xam ne nekk ci biir kër gi waaw xale yi aussi ngeen di jàngal tàmbal leen raxasu raxasu du jamonoy mbas rek mm, mm, mm, raxasu saa su nekk la jukko su nekk la heure boo duggee ci toilette yi boo génnee war nga raxasu boutique boo fa demee boo ñëwee war nga raxasu surtout kon loolu moom loolu. ahankay euh, constat boobu loolu ci hygiène la. ci la boo xam ne moom moo ci gën a mën a moo gën a mën a kii mais yal na ma si yàlla baaxee tuuti. xam nga lu may réagir. Mm-hmm. Mm. mooy euh, euh, farlu boobu. moom mm-hmm. moom moo ci ah, gën a xëy xëy dina ci wax dina ci wax ndax moom ci lay ci lay yëngatu. ci lay yëngatu mais loolu mm-hmm. moo war. moo war moo war. gis nga dem ne ba ci sax gis nga góor yi par exemple wala kër gi sax dañuy tàmbali lekk kuddu ñoom ñëpp exemple disons ñëpp kuddu la ñuy lekkee war a xasu balaa ngeen di lekk. Mhm. Mm. ndax xam nga lu tax. mën naa yow kilifa gi mën nga gis lu la neex ci biir ndën li mm. sa loxo moom la koy jox. Mhm. nga jël ko sa loxo lekk. Mm-hmm. te fekk raxas woo ñaat nit nga nuyu. Mm. lu ñaat nit nga nuyu. te yaa ngi jóge ci mbedd ba ñëw toog rek di añ ñun di la añ nga jël sa kudd añ ñaat nit nga nuyu ci mbedd bi xam nga ko. xale bi aussi même buy lekkee loxoom. dafa war a raxasu mhm. ndax xale bi bul xam fu mu laal ak fu mu laal mhm. mën na lekk ba saa xëy lu xale la teg kuddu gi rek mhm. jël la xam commencé lekk moo tax set daal dafa nekk loo xam ne lii du jamonoy mbas rek la jamono yëpp nit ki dafa war waaw jamono yëpp am na solo lool sax na ci benn ci pàcc boobu am na lu mu am lu mu wax li dëgg la parce que boo boo nekkee tey ji sa professionnellement sa bérébu liggéeyukaay bu ñu mës a fàtte ci biir kër nga jógee te yaay nga wallaay um, xale yi tamit comme lu mu ko waxee jóge boutique ñëw bi nga ñëwee si biir kër gi wal nga raxasu ak javel même pièce bi ñu lay wéccili man tàmmal naa ak sama kër ku ci dem boutique ba ñëw boo ñëwee da ngay dem nga raxas sa loxo ak ah javel ba mu set wecc nga soog a ñëw toog dégg nga mu ngi noonu mhm. euh, même école yi tamit bu ñu wàccee bu ñu egsee dama naan leen balaa ngeen di laal dara dem leen ngeen raxasu ba set ba ngeen pare ngeen dem simmeeku loolu waajur yi daf ko war a tàmmal euh, mm. ay doomam jabootam mhm. waaw même bu dul mas mi comme nu mu ko waxee même bu dul mas bi a mhm. chaque fois da war a raxas sa loxo ba mu set même boo génnee toilette. nga raxas sa loxo ba mu set wecc. du mbas mi rek la ñuy raxas loxo déedéet kooku da ko war a def habitude. chaque jour nga koy def. boo jógee école boo ñëwee nga raxasu ba set nga soog a laal li ngay laal booy añ tamit boo pare raxasu ba set wecc ak saabu. man loolu laa xam. lu leer la kon nag euh, euh, mbokk yi ci kër yi moo xam aji ndey yi la wala aji ñi nga xam ni ñooy borom kër yi yu góor yi nañuy dol dolli ensemble. ñu taxawal wareef yi soxna Guèye dama la firndeel léegi ni la tey bare nañu gis luy luy metti wala lu yàqu ci euh, space public yi wala bérébu dajokaay yi euh, ci biir kër yi loo jóge ci biir kër yi mm-hmm. muy éducation sanitaire boo xam ni mm-hmm. fa tabaarakallahu ci fànnu mbas mi mm-hmm. ñoom tamit ils sont concernés ca war nañ ci bokk euh, ci yow laay desandi bu ñu boolee acteurs yi ñu définir yëpp en tant que taskati xibaar. te ñu dox diiran ah, maa ngi koy rappelé léegi. ah ñaari at ak yooyu lu topp ñu nekk ci di gérer mbas moo xam ni tiital na nit ñi mënuñu ko dàq. booy def jàngat lan moo ci gën a metti ban fan. Euh, li ma ci gën a metti mooy ngay ngay wax ak koo xam ne kii déggu la ngay wax koo xam ne kii danga koy yee yee ba moom li mu jàpp rek mooy mbas mi amul. Mhm. li sotti rek la. socc rek la dañ ko jàppee or que mbas mi dafa am am na yenn socc yi sax mu méttee metti tar hmm. war nga dem nga xool sa hmm. ba xam est-ce que yow mi dundoo ak doomu jàngoro ji wala deet hmm. loolu moom ci gën a metti beneen bi mooy li nga xam ne rek moo jëm ci place publique yi dajaloo yi nga dem ci bërëb nga xam ne bi nit duñuy par exemple marché yi marché yi gaa xëy na mooy def espace mais bërëb bi nga xam ne bi par exemple hôpital exemple nit yaa ngi fa di rang da ñëw si yenn place doo gis duñu war def espace mm. espacement ñu soroyantoo mm-hmm. mm-hmm. te xëy na ñoom xeeb nañu soroyante pour ñoom duñu jàpp nañ suñu taf tampaloowul rek mm. seen rang du dugg mm-hmm. loolu aussi lu ma gën a metti la war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax loolu daal la amoon comme jàngat jërëjëf euh, jàngat bi am na solo lool di leen ziyaara euh, soxna si dañuy tënk li ma wax gert Euh, yaakaar naa ni mi ngi sa kanam. Mhm. ndax acteurs yi ñu taxawal. Mhm. Euh, nguur gi taxawaayam wax ngeen fi manquement yi. Mhm. jëm ci fànnu sensibilisation yi. gerte def si dellu si léegi euh, booy wax ak mbindeef boo xam ni buggul a dégg buggul dégg am na aussi ba léegi. lu ci taskatu xibaar yi wax am na ay méthodes. il faut continuer. a installer de méthodes. de proximité yoo xam ni yu méngoog suñuy valeur langue nationale yaa ngi fii dinaa ci dellu. ak yow bala ñuy dugg ci leneen fës nañu. parce que réew mi ñoo ko bokk. Mm-hmm. donc laaj nañu bu ñu jukkee dara ci benn kàllaama. Mm-hmm. yeneen kàllaama yi tas ko. Mm-hmm. ñëpp mun ko dégg. mais ndax jaadu na ñuy ñuy wax rek ci jafe-jafe yi ak yooyu euh, te fàtte li nga xam ni mooy dund gi dund gi metti gi jamono yi bas ba léegi. ni mu mettee dinañ ci xam dara léegi dañuy dem euh, seeti. waa VTR Vatimer Touwedat mu jox ñu suñu ñaareelu élément bon salaamaaleykum euh, sama tur euh, Boubacar Diallo euh, commerçant BMD bon depuis ñu def barrière yi am na yeneen commerçant ñuy dugg ci marché bi sans def masque am na yeneen tamit ils la masque surtout les gens nit yi nga xamante ni gémme nañu xam nañu corona ça existe ñoom du ñuy def masque yi am na yeneen tamit du ñu def en tout cas depuis daal temps corona yi am na yeneen tamit ñooy jël bagage di jëndi bagage yeneen def masque yeneen tamit du def ay masque c'est pas tout le monde qui font les masques là mais en tout cas nit yi na gën moytu quoi moo moo gën c'est mieux. bon bien sûr mun nañu wax yàq na yàqul parce que loolu c'est c'est une question. Euh, en fait euh, depuis ñu dafa par exemple par journée on vendait ku nekk mën na jaay dix sacs ou bien quinze sacs mais léegi depuis temps corona yi tu bëri ragal nañu ils ont retiré nañu ci marché bi parfois mën nañu jaay trois sacs wala deux sac en tout cas quand même marché bi changé na c'est changé na waaw waaw. waaw ñu ti nañ rek parce que bo euh, boo moytulee da ngay arrangé sa sa dëkkandoo say xaritoo mm-hmm. en tout cas quand même ñu na de ku nekk na teg ci moom xel masque cherul ku nekk jënd masque sans gars tu te protèges avec ça c'est c'est c'est pas des trucs compliqués. Euh, man maa ngi tuddee Seta mu jógee ba Nouadhibou ñëw fii rek congé pour quelques moments rek ah corona bi na xeeru xam nga rek mm-hmm. dafa dafa ñëw rek yàlla feebar bu yàlla indi rek mbas bu yàlla indi rek. teg ko suñu kaw ñu ñaan yàlla tamit mu teggil ñu ko nag si kaw jàmm ak salaam jaay na bi Moustapha mu dindi teggil ñu ko ah ñu ngi dundee ko ni ko ñëpp di ko dundee si biir kër yi depuis xale yi si mag yi ñëpp macha allah xëyee suba rek nga seetlu xale yi toppatoo leen defar leen ñu war a def nga defar leen seen masque école sax dañ leen jox léegi masque macha allah bu ñu xëyee boo wàcc encore raxas say loxo. yi nga war a def yëpp nga war nga def ko rek setal sa kër setal douche yi rek xam nga si suuf si raxas loxo yi raxas loxo yi tout le temps tout le temps di raxas suñu ngay loxo. ew am na kii tamit garab yoo xamante ne tamit dañ la koy wax defal ni ay vitamine affaire yooyu ak ay solution yoo xamante dañ koy yow yaa koy defal sa bopp ay jinjeer affaire yooyu nga def ko ko naan waaw fagaru daal moo gën faju dek loolu la dëgg yàlla euh, le message est passé partout wax wax nañ si liñ si war a wax jox euh, expliqué nañ ko n'importe quoi naka la nit ñu di moytu ak yëpp wax dëgg yàlla nit ñi tamit dañu war a yar suñu bopp xam ni tamit lii kenn tugga ko kenn yàlla moo ñu ko teg ñu war a góorgóorlu fagaru def li ñu war a def waaw waaw alhamdulilah alhamdulilah ñoo nañu gis nañ nit ñi macha allah ñu ngi góorgóorlu kam ñu ngi góorgóorlu xam nga rek jigéen ñi rek mooy loolu yàkkamti beeg parax parax rek boo tax yenn saa yi nga fàtte ko sax waaye boo ñëwee sax di nga même su fekkee sa mënal fa la di nga ko muuru nga nga ndax lool tamit daf lay sauver sauver ki nga àndal tamit fa sauver ñi ngay fekk tamit waaw ku nekk kenn xamul ku feebar ga ndax feebar bi mën na kii sax fekk ñun yëguñu ko sax mën na nekk si yow te yow ko mën nekk si keneen ti yëgoo yëgu ko kon ñu fagaru rek gis naa ñu bëri macha allah ñu ngi takk ay masque gis naa si yéen a ngi joxe ay masque yéen ngi waxtaan ak mbooloom yaa ngi nag waxtaan nit ñi yàlla nga waxtaan ak askan bi aywa ñu rafetu ko lool macha allah tabarakallah seen liggéey rafet na trop trop trop nag macha allah. wallaahi dinañ nag di leen si ñaax nag di leen si poussé donc ku nekk ne dem vacciné de sam bopp laa xam vacciné naa toute ma famille aussi macha allah tabarakallah aywa vaccination vaccin bi tamit bu la yokkul dara du la wàññi loolu la même bu fekkente ne demul complètement quand même dinañ la dimbali si yu bëri quand même dina arrêté affaire yu bëri dina arrêté encore évolution bi. loolu la nañ ñu gën a fagaru rek nañu gën a fagaru dem surtout vacciné wu ci surtout nañu vacciné wu ci kenn defal ko kenn ku nekk sa bopp nga ko defal. man maa ngi tudd Amadou Lam je suis commerçant soo Carrefour de foofu laa nekk di jaay corona bi dund bi dund bi métti na trop quoi parce que avant ñu ngi jaay normal mais bi kii bu bu bi yokkee. jaay ki dafa wàññi trop trop trop trop trop. waaw am na ñi nga xamante ne dañuy def maska am na ñi nga xamante ne duñu def maska mais loolu wóorul quoi def maska rek moo gën a wóor quoi am na wala amul moytu rek moo gën a quoi. ñu ngi ci waxtaan bu baax a baax ñu ngi ci moytu man du ma toog sans masque ah. damay raxas sama loxo man maa ngi moytu normalement. maa ngi lancé un message pour ngeen nekk di def seen masque yi corona bi dafa dangereux kenn du ñëw marché fekkee deful masque. waa mar waa marché nañu def masque képp kuy ñëw marché na def masque vraiment loolu laa ñaan vraiment population bi incha allah xale yi ak mag yi ñëpp di def ñëpp dañu war a def masque ñëpp la ñu war a def masque incha allah ah maa ngi leen lancé un message nañu def seen masque parce que euh, corona bi dafa dangereux dafa dafa am aussi dëgg la loo am la ah am na ñuy wax amul mais am na bu ñu waxee amul ñoom gisuñu xëy na couture mais corona bi ma am na moom am na du duñu war a moytu rek def seen masque yi kuy dem marché ak kuy yëg taxi yi partout fooy dem hôpitaux yi cliniques yi yëpp da war a def sa masque. jërë ngeen jëf euh, mbokk yi jàngat taxaw euh, jukki di am taxaw seetlu euh, seetaan ngeen élément bi si taskatu xibaar bi laa njëkk Guèye Diagne lan la la jox. Hmm. seetaan naa ko. Mhm. daf may jox rek dund bi nga xam ne ñu ngi koy dund. Hmm. muy loo xam ni. dëgg la métti na trop mais àddina bi yëpp la. Hmm. muy li jëm ci wàllu économie bi. Hmm. dund bi métti na lépp cher ci marché bi. Hmm. xëy na am na parti boo xam ni xëy na gouvernement bi am na ci responsabilité. ndax xëy na lu ci bare jegew fi. bitim réew la jóge di ñëw fii. waaye xëy na bu ci defoon. am na yu mu def yi nga xam ni def na ci kéem tolluwaay kàttanam ba wàññeek na mais xëy na mënul lépp. Mm-hmm. mais xëy na bu par exemple bu dee cinquante bu jëloon vingt cinq yi wala trente yi ni lii kat dinaa ko faytayoo. Mm-hmm. ngir ngir yi mën a yomba. moom li tubaab di wax subvention. waaw donc dama bañ dama bañ damay jéem a wax wala moytu mm-hmm. français bi waaw dinaa ko subventionné pour pour nga xam ni askan wi daan ci gis seen bopp. ñëpp nag ñoo si gis seen bopp. xëy na mën na ko benn parti def na ko benn parti mënu def lépp. Hmm. moo tax mu feeñ ci ñëpp nag. Hmm. marché boo demee lépp cher. Hmm. loolu ñëw tey semaine bii ñu jaayee la ko cent bu subaa wala bu semaine ba ñëwee jaayee nañ la ko 2000. Ah, ah, xëy na nag xëy na nag am ah. na benn parti boo xam ne bii ñenn ñi dañu ëppal jaaykat yi xëy na am na ñu ëppal. mais nag ñoom ñoo xam luñ ko jëndee. ba mm. jaayee ko loolu. Mm-hmm. ndax xëy na bu ñu daan jëndee xar cinquante mille. ah njëg ju tasaaroo kay jaay bu tasaaroo. bu tasaaroo bu ñu daan jëndee bu ñu daan jëndee xar cinquante mille ñëw fekk xar yokku na. Mm. ah ñeme itam du ñu def lu may xëy na yokk ci waaye na yokk bi da ëpp. Mm. ndax wax dëgg yàlla kilo yàpp dem ba di si yenn yenn exemple laay jox rek. dem si yenn prix yi. dafa jàdduwul si baadoo la. Mm-hmm. kon am na yoo xam ba yu war fi cher. ci mm-hmm. gàttal. am na yoo xam ne na fi ko. mais lu dee nag ay bàyyi ma yeeg ak ceeb yee yi hmm. yeneen yeneen hmm. fëriñ beeg yooyu yëpp première nécessité loolu war a fi cher ndax ñun am nañu ko hmm. am nañu ko yeneen yi war na cher ndax jege fi mais yooyu yëpp war a fi cher nguur gi dafa war kémtu laay kàttanam ba côté boobu mu gën cee mu ngi def mu gën cee da jàppale askan yi ngir ñu mën gis seen bopp si dund bi dëgg la Gaye Dane Fall mbokk yi ngeen dégg loolu mu wax ci xët bu am solo jëm ci njëg yu cher yi euh, dafa dafa metti lool ñëpp yëg nañ ko mbokk yaa ngi koy wax saa su jot. Mm-hmm. Euh, ñi ngi euh, euh, ñaan dégg am ndax kuy wax ku lay déglu ak di jëf. Mm-hmm. moom moo baax ci yow. Ah, ñu ngi leen ñu ngi lay ziar bu baax ci pàcc boobu soxna si mun ngeen toog ci poste de santé bi xam aussi ndool wala situation yi nga xam ni mbokk yi ñu ngi koy jànkonteel surtout ci xeexum mbas mi boo seetaanee élément bi lan nga ci jàngal. waaw maa ngi ci jàngat euh, euh, lu mu tuddee sax lu ñu wax lii comme dañoo yokk prix yëpp. Hmm. loolu moom am na partout la. ndegam mburu rek la ñu yokk te nga xamante ñu am nañu fariñ. Hmm. mburu rek dañ koo yokk. Hmm. te à partir am na ay am na ay heure boo buggee dem jënd mburu doo ko am. comme ñun fee PK. boo demee huit heures doo am mburu boutique yi doo am mburu parce que du wax ni dañoo yokk mburu suukar kazalika kilo mi ngi si ñaata 400 baadoo la fan la jëm. comme ni nga waxee yàpp. kilo 2500. Mm. Mm. sonn nañu am na ñi nga xamante ni sonn nañu mënuñu wax. wóor na yàlla sonn mm. nañu. dund gi metti na. Mm-hmm. wallahi metti na mm-hmm. xëy na nag nguur gi mi ngi def lu mu mën. am na am na mi ngi mi ngi def liggéeyam mi ngi wàññi am na ay parti mi ngi wàññi mais tamit am na commerçant yi nga xam ne dañoo ëppal. prix yi boo demee marché du ñu benn am na nga xam doo ñoo ëppal. xëy na dañuy def yëfu maa tey. désordre désordre. kenn réglé wul te contrôle prix amul. loolu mm. la mm. gëj ña. Mm. gëj ña am mm-hmm. waaw. président tamit bi ngi def lu mu mën. am na salaire yu mu yokk am na ñi nga xam ne dañoo wax ni nga ah moom mu bañoon yokk salaire sax wàññil ñu dund gi moo gën. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw metti na trop. waaw jërë ngeen jëf euh, mbokk yi dégg ngeen ko waaw ñoom ñaar ñi vraiment dund gu cher gi waaye bu ñu xoolee élément bi am na loo xam ni euh, seetlu nañ ko. du ñuy wax mais ci environnement bi ñu nekk parce que aussi nit ki environnement lu am solo la ci ci ci nit mm-hmm. Mm-hmm. li ma seetlu ci élément bi seetlu ngeen ko kenn si yéen bu mm-hmm. muy muy lan soxna si muy muy mbalit mi bravo sa salte bi bravo wala ñi ngi toog foofu ñi toog foofu di jaay ñi ngi koy noyyi y a problème y problème problème bu y a bu ñu bëggee soppi comportement nit ñi te environnement bi setul setul Koperman yi di kenn soppi ko dana jafe lool ndax nit seen bopp ñoo war a soppi seen seen bopp ba pare balaa kenn ñëw di leen soppi. xam na dégg ah, li ma wax mais soxna wax na lu mel wax na wax ñu dellu suñu bopp suñu bopp ba pare. Mm. balaa keneen dina ñëw dunu soppi. Mm. soppi bi mu ngi tàmbalee xool par exemple ki nga xam ne dafa doon wax. Mm-hmm. mi ngi taxaw ci sorewul poubelle mbalit bi. Mm-hmm. poubelle boobu ay nit ñoo fa def. et pourtant nguur gi moo fa teg poubelle bi. Mhm. sotti ñu ko ci poubelle bi lañ ko sotti. Mhm. doomu aadama moo fa sotti. ñi ci mhm. marché bi ñooy bale in sotti ko fa tax luñ ko si biir poubelle bi. foofu la wax ji nekk. xam nga ndimbal nañu fekk loxal boram. léegi man jaaykat sama yoon nekk si ñëw naa toog naa ci di jaay sama beñe kii di jaay leneen ak leneen ak leneen. keneen ñëw ñëw jaay ma ma jaay la nga lekk léeg-léeg këyit naaw sax ma xool ni këyit bi set na rek. xool kii am na ñoo xam duñu ragal ragaluñu. xamuñu ne yàlla dañ pour ñoom doomu adama la mais ragaluñu yàlla mm, mm, mm, ma xool gauche xool droite kii fëgg kayit gi mu set dugal nit ñëw ma jaay ko ci mu mm-hmm. na microbe mm-hmm. ndax xamul kayit gi fu mu naayee ba agsi ci man mm-hmm. parce que mu set wecc ma ëmb ci jox nit xam nga loolu yëpp dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax set daal moo jutul lépp ku ko amul amoo daal dama doon ñëw ci langue nationale yi euh, forme sensibilisation yi sensibiliser euh, da nga ko jooytu. ne des na daal des na. ndax du la gàllankoor boobu nekk ci. naam ñu ngi def ñu ngi def ay spot mais des na ba tey ndax xëy na am na ñoo xam ne ñi amuñu jotu déglu rajo. ñu ngi hmm. déglu am na ñoo xam ne amuñu jotu déglu rajo. Hmm. wala am na ñoo xam ne ñi xëy na xamuñu sax luy rajo. mais lu am na am na am na. Hmm. am na ñoo xam ne amuñu jotu déglu rajo. Ah, par exemple heure bi waxtaan exemple heure bi spot bi di dem. dana nekk xëy na ay midi wala ay une heure boobu ñu ngi seen place liggéeykaay te koppar lañ mm-hmm. bi la ñu nga fa di liggéey. Mm-hmm. kooku xam nga borom dégg ko. Mm-hmm. borom tool bi nga ci tool ba di bay bu dee jigéen la. xam nga jigéen ñi ñoo ko gën a war a gën a dégg. ma ngay bay kon ku koy dégg. kan mooy dégg sport bi naam ñu ngi def suñuy sport ñu ngi dem ci mbedd yi di bi si nit yi foo tourné ñu ngi dégg suñu voix macha allah mais dégg-dégg bi moo des. ndax xëy na amaana ne buñ tànnoon waxtu yoo xam ne yii. ñëpp nga seen biir kër toog. Mhm. daañu dégg sport bi heure de diffusion yi. ngoon mhm. ñu ni ah. telle heure ñëpp nañ ñu ngi seen bi kër toog. Mhm. nañ ko jàllale. mais yenn heure yi ñu ngi seen kër ñu ngi seen liggéeyukaay ku ne yaa ngi si yitte. sensibilisation bi daal moo des. moo des moo des. Euh, soxna si kii ay sport la wax. choisir yenn heure de. diffusion yeeg yenn yi surtout. Hmm. nga xamante ni parents yi ñu ngi daw di jox seen njaboot lu ñu lekk surtout. heure boobu du ñu am jot di toog di seetaan. tey parents télé sonn yaay. papa daw. <laughs> ña daw di ñu jox seen njaboot kon li nga xam ni mooy respect. Mhm. geste ba éducation reste barrière éducation sanitaire ci biir kër yi ku koy ku koy def. ah yaa ngi wax daw de moom dool moom dooy <laughs> doy waar. <laughs> Ah, bu góor jigéen dawee. waaw jigéen daw jigéen daw aywa. kër ga moom maa kër ga non problème du fa am problème am fa moom organisation rek la laaj. organisation rek la laaj. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax sama ma mm-hmm. kii daw lépp dañ ñëw si biir kër gi rek. xale yi naam xëy na dina am benn temps boo xam ne bi dañu la gis mais am na temps boo xam ne bi uniquement ñoo ko moom. nga ni telle heure su wàccee samay njaboot laa koy jox. toog xool leen. lu ñu war a def ñu def ko mm. bu ñu waree nelaw ñu nelaw bu ñu waree lu ñu war a daal ñu def ko mm-hmm. Mm-hmm. xam nga am na temps boo xam ne bi dafay gis sa njaboot dëgg la ñu toll si jamonoy daw mm-hmm. xëy na am na góor yu baax yoo xam ne macha allah seen seeni soxna duñu leen di bàyyi ñu demee nu ñoo xam ne bàyyi seen soxna duñu dem fenn mais xëy na jamono ji métti na métti boo xam ne bii ñit mm. ki mm. même bu dee jaay ci buntu këram bayi ka mu jaay def dara ndax loolu lu bon bon fukki dërëm bu muy dugal jënde almet daf la ko waroon laaj. Mhm. du la ko laaj dina dem jëndi almet mhm. indi def ci kër gi. Mhm. xam nga kon daal nekk na si jamono joo xam ni daal. damay ñaax sama mbokku góor yi rek ñi nga xam ne ñu ngi ci biir kër yi. nañu bàyyi seen sax nañ ñu teg seen taabal. ñu teg seen taabal ci buntu kër gi. wala ñu am fu ñu ko mënti def baat ñu def ko fa. di jaay. ndax jamono ji métti na trop. gis ngeen ko jamonoy mbas mi bu mu ñëwee ba léegi dafa gën a yokk. dafa gën a tar dafa gën a yokk. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. jërëjëf euh, euh, soxna si. dafa am looy dolli ci euh, fànn wi nga xam ni Gaye Diagne Fall wax na. parce que dafa am mu dugg ah. fu am solo ah, foo xam ni borom kër la. <laughs> dëgg la la la jàkkaarlool. Uh-huh. Hmm? te yaakaar naa. nañ leen bàyyi ngeen wuti dara. yaakaar naa soxna Gaye. Hmm. gisoo gaa léegi jigéen bu toog. Mm-hmm. jigéen ñëpp ñi ngi takk seen sa di mm-hmm. daan seen doole mm-hmm. dëgg la jigéen ñëpp ñi ngi liggéey léegi benn jigéen toogatul yaa ngi teg sa taabal wala ngay dem di fóot wala ngay def journée journée yi ñu lay fay ngay bale di raxas demi journée yi kenn toogatul macha allah ndax euh, jamono bi moo ko laaj liggéey daw jox sa njaboot ñu am lu ñu lekk am lu ñu naan kenn toogatul léegi macha allah wax nañu gert wax nañu ci ay spot spot télévision wala rajo wala mm-hmm. rajo mm-hmm. Euh, euh, réseaux sociaux yi la ñëw ci pàcc mm-hmm. quel la l'apport lan mooy njëriñu réseaux sociaux yi si seen gis-gis ci xeexu mbas mi wala lan la ci réseaux sociaux yi mën yu ci mel ni plateforme WhatsApp ak yenn yi lan la sa gis-gis euh, sama gis-gis ci réseaux sociaux yi mën na ci lu bare mën na defar mën na yàq ndax début bi muy soog am dee tàmbali réseaux sociaux yi am na lu mu yàq loolu nag moo des ci bopp nit yi ba léegi naan vaccin yi baaxul ci fànnu vaccin ñu ñëw xam ci vaccin génn ñu génn bu ñu bañ génn pour bañ génn gaam naan vaccin yi baaxul réseaux sociaux am na lu mu ci defar am na ñoo xam ne ñii ba ñu déggee rek daw vacciné wu ji ni baax na hmm. am na ñoo xam ne ba ñu déggee ni baaxul fa lañ jaar ba léegi gëm ni baaxul hmm. danga dèjà yàq na lu bare bare hmm. te ñooñu del pour nga jëlas leen day jafe naam am nañu waxoon baaxul ci début bi mais ñëwaat nañu ni baax na dem leen ngeen defi ñi ko waxoon ñoo génnaat restitution dem leen ngeen defi mm-hmm. kooku déjà xëy na am nañu ko déggaat mais ñi ko jotoon dégg day ba léegi mm-hmm. seen xel ñoom xalaatuñu mm-hmm. dem di vacciné wu ci kon restitution yi mi ngi defar mi ngi mi ngi defar mi ngi yàq euh, dina lu ñëw ci lu mu mën ci def fànnu defar bi booy digal koo xam ni dafa xalaat ni réseaux sociaux yi yoon la pour ñuy def yenn ci euh, sensibilisation yi lan nga lan ngay digle waaw damay digle ni comme ni mu ko waxee ni mhm. réseaux sociaux yi defar na yàq na ndax dañuy wax ni boo ñàkkoo ñaar fii ak ñaari at dangay ngay dee mhm. nga wala ñu ni jigéen ñi dootuñu amati doom mhm. loolu amul fenn rumeur yi rek la loolu nag réseaux sociaux la day yàq day defar amul fenn ndax man gis naa ko defar bi moom la ñu war a taamu quoi defar bi moom la war a taamu waaw moom la ñu war a taamu waa am na ñi nga xam ne seen gis-gis euh, lu mu tuddeeti sax euh, bu ñu dégloo réseaux réseaux sociaux yi nii affaire bi day yàq. Mm. am na ñu bari ñi nga xamante ñëw nañ ñàkku. Mm. Mm-hmm. am na benn jigéen bu mu ñëwee mu man de dama bëgg a ñàkku waaye man damaa tiit. Mm. kaay nga defal ma ma ne ko ñëwal. ñëwal nga ñàkku ma ne gis nga lii doo ko sax yëg du dara. tey saan ma lii rek laa bëggoon ku may defal. ndax réseaux sociaux yi yàq na mun ma xelu nit yi. Mm-hmm. yàq na ma ne lii nag kenn du dégg seen ay wax. adduna mm-hmm. moo demee noonu. ñàkkul rek ma ne ko jàmm rek ngay am incha allah. jërëjëf euh, la ma la ci mmh, yokkal balaa ñuy tëj rek. Mmh. am na ñoo xam vaccin bi mu tàmbalee ba tëj ci vaccin yi rek. Mmh. ñu bari début vacciné wu ñu woon. ñu naan la soo tegee dara ci sa loxo day kii or que nit ki même boo def vacciné wul. boo tegee si dara ci sa loxo. sa kii day jàpp. loolu déjà ñun ñii lu bari yenal leen mhm. ñun ñi tas xibaar mhm. ñu bari yenal leen si ba dem nañ vacciné wu mhm. kon dem vacciné wu day jàpp wala ciseau bi day jàpp nañu dem vacciné wu ngir aar seen bopp aar seen njaboot aar seen njaboot mooy yoon wallaay jërëjëf kon euh, ci soxna Guette la ñu jóge léegi dañu ñëw ci yow pour sa kaddu loo xam ni xam nga waxtaan dama koy wax à chaque fois dañuy jukki man ma def sama conducteur di laajte mais toujours doomu adama bi dina am loo xam ni bëgg na ko génne te kenn laaju ko ko yaa ngi jàkkaarloog réew mi. Mm-hmm. waaw sama mbokk yi nag dama leen di ñaar rek di leen ñaaxaat ngeen mm-hmm. vacciné wu surtout xale yi ndaw yi ñu commencé léegi vacciné na 12 ans. à 17 ans fukki at ak benn at ak euh, benn jëm kaw. jëm waaw mm. jëm kaw. Mm-hmm. ñu bëri nag vacciné guñu ñu dem nañ si école bi école yi <coughs> am na ñu vacciné am na ñu vacciné wul. loolu nag yoon ñëpp nañu ñoo war a vacciné am na ñu vacciné bañ a def deuxième dose. ñëpp nag dañu war a euh, ñaax seen doom yi. ñu vacciné ñu am seen carte. Mhm. man sax dama yàlla ma yàlla baal dama leen di wax ku ku amul sa carte brevet bu ñëwee. mun nañ la commencé foofu ci examen yi. ci examen yi pour rek ñu mën a ñàkku ma ne pour rek ñu mën a ñàkku. Mhm. waaw loolu rek laay ñaan. Euh, exigence ñu exige ñàkku yi pour ñu ñàkku waaw. ci ci école yi ci yi. am na ñu ñàkku am na ñu ñàkkuwul man sama doom day xëy heure bu xëyee day def masque nee na bu demee classe bi ñaari nit wala ñetti nit ñooy def masque. Mhm. dañ leen di wax yéen corona amul. bu leen ñu sonal si ay masque xale bi léegi dafa ko tàmm dafa ko tàmm chaque jour buy dem école mi ngi def masque am mhm. macha allah jël na ñaari dose am mhm. alhamdulilah kon nag maa ngi ñaax xale yi ñu dem ñàkku ji ñi am fukki at ak benn jëm kaw nañu dem ñàkk ñàkku ji ñàkku wér gi seen wér yaram dong la mhm. loolu rek laay dikk waa réew mi euh, defal ma tuuti bala bala ngay génne sa situation poste de santé ak Riyad bi mu nekk euh, euh, taxawaay bi yan inconvénient ngeen fa am ndaxte mënuñu continuer di euh, taxawal situation citoyen bi. Mhm. ak ay manquement am te waxuñu infrastructure yi ndax am nañu jumtukaay wala jogteef ci ressources humaines yi nga xam ni moo leen di permettre ngeen def seen liggéey ci. waaw jumtukaay nag am na lu ñu manqué am na ay jumtukaay lu ñu manqué comme ñun ñuy nekk ci affaire Covid bi. Mhm. ah parfois moom dañuy manqué ay jumtukaay. Mhm. muy comme gel alcoolique yi parfois dañu ko am. wala gants yi duñ ko am te ñun dañuy def encore test yi. Hmm. test yi dañ koy def temps yi mois bi début mois janvier bi hmm. positif yi bare na lool. ah oui waaw waaw bare na lool. ci tàngee juddu. bare na lool. positif positif positif positif yi bari. bari hmm? centre de santé Riyad boobu. jàkkaare dugg. chaque jour di nga am cinq positif. ah oui Riyad suñu centre bi rek laa wax de boole ma si ñeneen yi chaque jour positif. kon nag mbokk yi mbir maa ngoog. Tungeneer du teew ñuy nataal. nataal voilà euh, Guèye Diagne jàngat ci biir lu mu wax wala jàngat sa bopp en tant que taskatu xibaar nga jàkkaarloog réew mi. waaw damay njëkk jàngat ci li mu wax. Hmm. mu ni mois de janvier bi macha allah kon li mu ci wax rek noo ko déggandoo. Hmm, hmm, li ma ciy wax rek mooy dama ci ñax askan wi. leen nañu dem ndax. nit ki hmm. kii ñëw ñu teste ko hmm. mu positif hmm. amal na ne fii mu jaar fii mu jaar fii mu jaar ba egsi wala ñu bare kon képp koo xam ne yëg nga dara ci sa yaram rek muy muy signe yi nga xam ne moom la ñu wax da nga war daw ci bërëb bu fajukaay ñu testé la na ne buñ testé woo ku nekk xam ne kii am na doomu jàngoro ji dana wàññeeku mais ku nekk am ko di dem ak moom day gën a yokku rek yal fi yàlla jële fi yàlla jële amiin lu may jeexale rek mooy ci wàllu vaccin yi ba tey rek moo di nañu sensibiliser jëm ci école yi. Mm-hmm. comme dugg nañu xale yi yem 11 ans. Mm-hmm. laaj na ci sensibilisation d'abord wax ko ñi nga xam ne ñoo leen di jàngal. ñu mm-hmm. leen xale yi nañu préparé xale yi pour ñu xam ne vaccin dana ñëw. daañu ñàkk waaye nag waajur bi moo war a njëkk préparé dawam. ci kër yi. ni ko ah nee ñu commencé nañu ñàkk xale yi nga xam ne dañu am 11 saa yi ñu ñëwee seen école. na nga ñàkk. ñàkk bi du dara nag. pour aar la ci corona bi mhm. corona day lii day lii gis nga chaque jour ñu am na ko décès mhm. décédé mhm. lu ko rey du corona xale tiit na boo demee jënd vacciné wu ji raxasal say loxo boo demee defal sa masque bul nuyoo ku lañ bul bul jël lekk sal bu lekk dara bul ñaan loolu yëpp ñu yee ci xale yi dëgg la amaan na ne buñ ko defee yàlla dana musal ci corona bi Gaye Diagne Fall taskatu xibaar mbokk yi euh, di ko jaajëfal euh, ci teewaay bi ndaxte euh, saa yu leen soxlo ngeen teew au service de la République. soxna si. Mhm. Aïda Moussa Gaye mhm. di infirmière nekk ci poste de santé Riyad. centre de santé de santé Riyad di la jaajëfal. mbokk yi am di jàmm yi seen émission waxtaan wi Ibrahima Idriss jaajëfal leen. di nuyu mbokk yi ci tund waalo yi jox leen cër bu baax a baax di leen jaajëfal. dinañ dellu si saa su jot fukki fan ak juróom euh, ci weer wu ne seen émission waxtaan wi. di nuyu njiitu réew mi son excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani la première dame Mariam Vadal nga xam ni mi ngi joge ca fële ci euh, Zouérate ngir euh, jukki lu jëm ci aji waylaago yi surtout tout tànk yi du dëgg. ah il faut ñu. waaw ok tëj nañu waaye man dañuy dama jaajëfal kër gi nga xam ne wala wér-gu-yaram. Mm-hmm. Mm-hmm. éducation pour la santé. ok ñoo ma fi yebal tey. Mm-hmm. ngir ñu yokk sensibilisation. am na solo kon gàcce nga ma am na solo tamit samay infirmières yu ma jàppale yi ci Covid bi parce que sonn nañu lool. maa ngi remercier sama médecin bi ak sama ministre de la santé. jërëjëf macha allah. alors un grand merci à tout le monde. réew mi la ñuy jaajëfal. aji ñi nga xam ni ñoo yore wer gu yaram bi di leen jaajëfal ulema yi ak surtout le secteur informel ñuy dem di leen yóbbaale saa su jot di leen xalaat ndax dund gi metti na wax ngeen ko euh, euh, bàyyeeku am na ci citoyens yi waaye itam manque de sensibilisation ci li nga xam ni moo jëm ci euh, li nga xam ni moo jëm ci xeetu variant bi di Omicron mbokk yi am di jàmm yi Ibrahima Idriss seen émission waxtaan wi di leen jox ji daje incha allahu rabbi benen yoon ci suñuy programme la télévision al Mauritania di jaajëfal Vatimetu Wadat ak uh, ki nga xam ni moo nekk ci dégg-dégg bi Mawlud Malick si di la jaajëfal bu baax a baax di nuyu kooku di Ahmed Abdalahi Haddahi jox ko cër bu baax a baax la réalisation Ahmed Salem ul Boubout jërë ngeen jëf suñu caméraman yi ñoom Vadel ak toute l'équipe mbokk yam am di jàmm yi jàmm xéewal ci yéen guddib jàmm ñu jaajëfal réew mi di ñaan jàmm ci réew mi asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh التفنن وأصفيه بحسن يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف يفنى الزمان الزمان وفيه ما لم الصفي يفنى الزمان وفيه ما لم يصفي